Ousmane Sonko ci audit wi nga xamante ni Ousmane Sonko mu nga koy sàkku. Euh, li ma xam mooy premier ministre suy wax na wax ci lu mu xam. Mhm. su yëkkati kàddu en tant que premier ministre nag de la république du Sénégal. Mhm. balaa muy wax dañ ko war a briefer ba pare. le projet des soixante milliards c'était pour dix villes. partie. mais le projet fiñ ko débloqué c'est pour Louga c'est Louga à Louga ko naa débloqué 20 milliards et les projet ont été réalisés à Louga donc li mu wax Saint-Louis amul kilifa suy wax da ngay wax ci lu li nga xam dañ la war a briefer balaa ngay wax en tant que premier ministre de la République du Sénégal. mais Adama Adama Fall. gisuloo ni Ousmane Sonko. en tant que première ministre. amul les informations qu'il faut. avant muy dem li nga xamante ni moom moo di. ca Saint-Louis waay premier ministre moo toog fii ne yëgul ni ñu ngi ñi ngi ñi ngi dindi les marchands ambulants de Colobane moo ko wax noonu. quand tu me cette question là il faut lui poser la question la lettre circulaire du préfet tu l'as non. ñun ñëpp ñu ngi ñëpp am nañ ko noonu moom nee na yëgu ko. du ministre de l'intérieur. moom mu ne amu ko moom mu ne yëgu ko des fois moom moo la yëgul ñu ngi ngi dindi marché ambulant yaa Colobane donc su yëgul lii du ma bett wala parce que la réalité c'est ça la réalité sur cette affaire c'est un projet de 60 milliards qui concernait 10 villes te 20 milliards yi BOAD Banque Ouest Africaine de Développement moo ko joxe. moo financé projet bi à hauteur de 60 milliards 20 milliards yi la ñu def Louga te réalisé nañ ko ba mu jeex tàkk à Louga donc fi mu doon waxee du foofu il demandait l'audit des 60 milliards un premier ministre quand il demande l'audit des 60 milliards war na mën a am toutes les informations sur est-ce que le budget le le projet a financé totalement ou bien le projet n'a pas été financé le projet n'a pas été financé totalement te xam na ko après ba mu ñibbisee la ko xam il faisait de la déclaration parce que li mu wax sooy wax da ngay wax lu la wóor ak lu la leer kilifa du waxee noonu te li gën a garaaw le ministre le directeur général de l'ONAS était là-bas le directeur général de l'ONAS docteur Cheikh Dieng était à Saint-Louis il a pas, dit c'est pas le directeur général de l'ONAS c'est ONAS docteur Cheikh Dieng moom moo jiite ONAS. j'ai dit le directeur général de l'ONAS de l'ONAS Office ah, national de ah. l'assainissement du Sénégal. D'accord. que je connais très bien. Mm-hmm. il était là-bas il a dit au PM pourtant on n'a pas débloqué les quarante milliards il lui a dit mais il a insisté dans ses erreurs. looluy dëgg parce que ONAS moo réalisé loolu financement bi BOAD ONAS la ko jox mooy def réalisation projet yooyu donc le directeur général de l'ONAS Cheikh Dieng xam na fu projet yi toll donc kilifa suy wax ci mbooloo dama ne j'ai dit je grand suñu paree ma wala Cheikh Dieng mu jox la il a dit au PM c'est 40 milliards qui Mhm. vingt milliards yi fi moom la ñu financé te Louga la dugg. Mhm. donc kilifa suy wax day wax gis nga nag wax yi nag moo tax ñu taxaw fii ne sàcc gi. Mhm. détournement bi li ñu def alalu Sénégal. wax rek suba suba. xam nga wax nañ fi l'affaire des mille milliards de du du du Covid. de Covid ah, ci loolu ci lay ñëw. non par rapport xam nga wax nañ ko ci. la liste qui a été envoyée par le ministre de la justice amul benn ministre de la république bu ca ne c'était au cadre de la fonction publique de hauts mhm. euh, ñu avancé.